te askan wi. ne nañu ànd ak dal euh, ànd ak euh, tey ba xam ne daal euh, intérêt général bi nañu ko sóoraale xam ne Sénégal bu dal moo gën Sénégal boo xam ne kenn ku ci nekk boo xëyee da ngay naan sa moroom naka yaram wi. Mm-hmm. wax ngeen ci lu bare bare jàpp ngeen ni wax yooyu moo bokk na ci li am impact ba li daam ak maam Biram wax. ci ne violence bi jéggiwul dayo lool lool lool ci ci ci ci bii passé ndax est-ce que jàpp nga ne euh, looloo ko looloo ko indi wala déet te balaa boobu sax xam nga kii di euh, euh, sëñ Babacar si daana def orientation ne nit ki ñaari carte la am muy carte làmmiñam ak carte bi nga xam ne mooy carte élec électeur am léegi nag na denc benn bi bu ko defee mu jëfandikoo benn bi te mooy bi muy sànn ci ci kii bi ndax logique yooyu jàpp nga ne moom lañu ñu activé yu mel noonu ba tax euh, li ñu wax ni euh, am donte le nag am na ay tolof tolof yu bare yoo xam ne jar na càmbar ba xam exactement lan moo tax mu am. waaw alhamdulilahi rabbil alamin euh, yaa am na njoxtu nii wax dëgg yàlla sunu kaddu acteurs politiques yi dégg nañ ko ndax kuy seet ni ko maam Biram analyser rek avant campagne bi di ñëw. am na fi le 17 juin am na fi le 29 juin euh, je crois que le 29 sax man maa toogoon fii ci plateau bi daana nuy commenter di apaiser euh, c'est vrai tiitaloon na ñëpp nag ñëpp tiitoon nañu le 17 juin 29 juin bi nu ayee marché bi tamit ñëpp tiitoon nañu ni campagne bi nu jëm dina nekk campagne bu doy waar loolu taxoon nag nu yëkkati suñu kàddu partout fépp euh, ci biir société civile ci wàllu association des imams yëkkati sunu kàddu ñaax acteurs yëpp ci apaisement ci dal ci responsabilité ah te li ci ëpp solo nag mooy yàlla dafa def campagne électorale bi muy ubbi muy le 10 euh, juillet tombeeg bisu tabaski wax dëgg yàlla nu nu nu lancer message imam Sénégal yëpp ni leen seen message da ngeen ko def ci campagne bi nuy dugg muy campagne boo xam ne acteur yëpp dem ci ci dal te je crois que ñëpp julli ji woon nañu ñëpp déglu nañu télé yi déglu nañu rajo yi message yu imaam yi dégg nañ ko nu duggee ci campagne bu alhamdulilahi rabbil alamin amul benn jafe-jafe ba bi nu demee ba constaté ay incident di juddu fale ca Thiès ca Kaolack ca Bunkiling ak ca feneen ak feneen ak Géejawaay donc boobu la dégg ay xeeti na commencé juddu ci yenn propos yi nga xam ni ay kaddu yu ay leader doon yëkkati xëy na di kaddu yoo xam ne mën na xajamal jàmm ji rawat na ay propos yoo xam ne régionaliste wala ethniciste ci wàllu xeet wàllu boddi compte yu demee noonu mhm. ci la ñu réitéré waat suñu appel ñaaxaat leen waa ku ne dégg nañu ñaaxaat leen pour nu mën a delloo si xel yi dem ci jàmm pour nu mën a am ay élection yu dal et bi message boobu jàllee wax dëgg yàlla tamit constaté wonu ay incident majeur xëy na am na ay léeg-léeg mënul ñàkk nag ci campagne électorale ay waxante fii jiiñante fii et cetera euh, kon ci terme bilan euh, période pré-électorale bi avant élection yi di ñëw ñun constaté nañu alhamdulilah rabbil alamin violence bu jéggi dayoo xëy na amu ci te loolu mooy li nga xam ne tamit euh, observateurs yi fi ñëwoon Euh, muy COS di mm-hmm. CEDEAO yëpp bi ñu defee bilan bi euh, lendemain élection yi muy lundi le premier août mm-hmm. bi ñu ko defee wax dëgg yàlla gis nañu ni dans l'ensemble élection yi dem na ci dal amul tension amul dara ndax ku wax élection ci Afrique élection est souvent synonyme de tension et de violence ci Afrique ndax am na réew yoo xam ne xëy na ñun li nu am amul na ko mm-hmm. ñoo xam ne ñoom seen période post électorale day nekk période yu doy waar am na benn réew fii ci Afrique tey mi ngi ci vote démb Kenya mm. di réew moo xam ne tey observateurs yu bëri ci àdduna bi tey noonu ngi leen fa déployé parce que lu ñuy ragal mooy période de post électorale dafa mos a nekk ay ay période de tension mm-hmm. ay mort doom nit ñi di faatu loolu la ñuy ragal alhamdulilah loolu yàlla dimbali nañu si ba nga xam ne post euh, période pré électorale bi amul woon jafe-jafe yoo xam ne xëy na euh, majeur ba ñu dem ci élection te bi ñu demee ci élection yi tamit ku nekk bis na bisu élection yi wax dëgg yàlla nit ñi génn nañu dem voté ji malgré ragaloon nañu comme ni ko ñoom daam su lu ñëwee ñëpp tiitoon nañu ne 31 juillet Sénégal mi ngi ci diggu nawet euh, te bis boobu tamit bi nu commencé tam gis nañu zone yu bëri lu mel na Kaffrine doon taw ak yeneen gox ci Sénégal. Mm-hmm. Mm-hmm. ragaloon nañu sax taux d' abstention euh, euh, taux de participation bi nu am. defoon nañu sax duñ ko am waaw. mais yàlla def na wax dëgg yàlla taux bi acceptable na nit ñi génn nañu voté ji. ci jàmm ci dal amul benn incident violence majeure boo xam ni euh, souligné nañ ko ci bis ba kon loolu yëpp nu njortu ni kon wax dëgg yàlla sunu message jàll na te mooy sunu rôle mooy di woote toujours à l'apaisement parce que acteurs politiques yi aussi dama koy wax toujours rek dañu war xam ne ñoom du duñu ay ennemis benn sentiment d'animosité waru ci am mu dañu xam ne ay adversaires lañu te te dans les jeux démocratiques dafa am solo lool nga respecter sa adversaire donc loolu wax dëgg yàlla moom la ñu gis ci en terme de bilan te recommandation yi ñu joxe woon tamit je crois que recommandation yi tamit bàyyi nañ ci xel te moo doon lan moo doon euh, nu fexe góorgóorlu ba am post période de poste électoral bu dal te nu koy amee mooy bu nu paree ci vote bi bépp parti wala coalition boo xam ni gañe nan la na nga féliciter ta morom na nga d'accord na nga d'accord féliciter ki nga xam ni moo gañe euh, loolu bokkoon na ci recommandation yi ñu defoon amagul. noo ngi déglu nag xëy na bi. vote vote bi jàllee. lendemain élection yi amaluñ si ñaawlu woon ñun xëy na moo doon euh, am na tey ay kuréel yoo xam ni habilité pour nous proclamer résultat li nu ñaawlu woon mooy. ku nekk di parti bu ne génn. parti au pouvoir njëkk génn di joxe ay résultats di joxe ay déclarer ni vainqueur la nu ñaawlu ko. parti tamit euh, opposition bi tam coalition bi tam defaat na nu mel ci lendemain mais muy yoo xam ne dañ ko ñaawlu. parce que yooyu bu bu amee rek day yàq lu bëri bu amee day fragiliser sax kuréel yi nga xam ne ñoom lañ fi teg. pour wane loolu pour nu wa war joxe ay résultats. donc loolu nu ñaawlu ko mais logique boobu noo ngi ci ba léegi pour xaar tey euh, euh, commission provisoire recensement de vote bu fekkee tey déclaré na résultat am wax na comme ni mu ko indee bee pa semaine bale passé bu ko conseil constitutionnel validé nan képp koo xam ne gagné nan la da nga félicité ñi nga xam ne vraiment ñoo gagné ci jàmm ak salaam comme ni ko Sénégal xamee donc ba léegi daal euh, noo ngi am yaakaar que message bi nu lancé woon ci début bi ci logique boobu la du nekk ba tey Euh, jërëjëf jërëjëf imaam euh, imaam euh, Matar Ndiaye dinaa ñëwaat ak ci yow sax ci seen li ngeen def ak impact positif bi ngeen ci seetlu waaye ndax est-ce que da ngeen di wax ne dangeen di croiser bras yi léegi toog walla njaw des na xam yi des na yeneen doxalin ci kanam ndax ñu ngi ci ay yeneen mbir yoo xam ne. daanaka bu ñu orienté wu ñi nit ñi itam tële tële mën na ci am jërëjëf imaam Cheikh Diop yow itam yaa nga woon ci.